xees la ko lebal gis nga nit day am sutura xaaral ma wax la waxat gis nga boo dem Casamance waaw mankaay yi ñëw sàcc suñu mbaamu kooku yëpp eh, eh, eh. ah. yow fii daa may mankaay yi fi toog de ak ak ak joolaa yi ak joolaa ah séeréer yi boo gis Casamance waaw sàcc mbaamu moo ko astagfirullah yow waaw wuy ma yow xam nga ne fii sa mbokku njaago yee fi nekk ak sa joolaay ak sa balanta yeeg peepel yi ñoom ñoo fi nekk. gis nga la. waaw wax na sàcc yu mag yi nag. ñan ngay sàcc may balanta balanta. yow balanta nan la nekkee sàcc. nga balanta. waaw ñoom dañuy gas si suuf comme kaña. dañuy ah, ah, ah, gas gas gas. dañuy gas nii comme kaña. waaw soo yow mii eh bu kii tooñ kat jaago du jeex billahi fi no feet bi moom yow dafa mel ni dama la xamé li yow ya nekkon ci télé bi naan nga lax yi benn jullit du si naan dañ ciy def beer. wa li ya ko. man ma wax nga yàq bi. ha ah. bu jotté rek def leen biir. déet. ci bu ko ni rek mu man lii mo eh eh eh wuy ma yow bo defé lo da nga sis yow tabaski bi tuuti na leen tibbal yàpp. yàpp. waaw. tabaski danañ ñu tibbali buuti ci mbaa ka buuti. Eh, eh. buddi na leen duggoon. yàpp bu bon bi. man yàpp bu bon. Eh, waaw xoolal dimbali ma. Eh, damaa bëgg nga génn bàyyi ma kon ne ñii sama feet bi. fii yaa toog ba gendarmerie. soxna si damay dem wooyu police yi ñëw génne la fii de. dama indi gendarmerie. ma dem indi la. gendarmerie. nga ne faale wu police yi. mi ne. ah Macky Sall chaque man di faale wu. Macky Sall ma. yëkkati ma réew fay. Macky may wan. eh am amul ay xaaral man dama yàqante li may def. fii si ne tubay bi. waaw. doomu Macky Sall bi moo ko moom. Ah, ah, ah. man doomu Macky Sall moo moom lii. Amadou Sall. Amadou Sall moo moom bii doomu Macky Sall.